Rangou ak Eben Diop nekkoon fii ay xarit yu jegeyantoo lool ci jamono jamono ji ñoo raw waa Iran ak Irak ndax ab xiiroo ak ngaayo bu dox seen diggante jegante giñ jegeyante woon nag taxoon na ñu bëri yaakaaroon ni sax kii di Rangou moo nekkoon bras droit wu Eben Diop ndax kat jet setteuse bi di Rangou daawul jóg ca salon Eben bi nga xamante ni moo tudd Eben Nil waaye nag daanaka depuis bi nga xamante ni Rangou jël na décision ni dina siwal benn jigéen boo xamante ni am jëkkër am far ci la seen coow daal di rek tàmbali ay fan rek ginnaaw anosam boobu moom rangu ci lañ ko fekk biir appartement dat koy agressé loole nag ña ko def di ay goro gayaar yoo xamante ni kenn xamut fan jóge woon waaye nag ginnaaw bi kii di rangu dafa génnoon rek ni kii di jëkkëru Eben Diop moo ko jiite woon moom mi nga xamante ni rangu daf ko doon accusé ni dafa infidel affaire bi dafa simple ba bëgg dee sama benn copine bu ma doon àndal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 ginnaaw révélation rango yu doy waar yi mannequin bi di Eben Diop moom it génnoon na def ab sortie ca page Instagram am moom it jotoon na sax menacé ki nga xamante ni moo di rango ca boobule sortie nag mu bindoon ci page Instagram Eben Diop meloon ni ku mer loolu doon teggi tuuma bi nga xamante ni kii di rango teg na ko ci kaw mannequin bi nag xamle ne woon ni bëggu ci woon àddu waaye nag teggi tuuma daa nekk loo xamante ni mënul ñàkk ndax kat du may kenn muy ternir li nga xamante ni moo image famille dem si réseaux sociaux yi naam sax bëggu ci woon a wax nag waaye Rangou dafa daal di dépasser les bornes Eben Diop xam la ne woon na ni moom nekkul nit koo xamante ni dafay nekk ci réseaux sociaux yi di dàggante ndax nit la koo xamante ni dafa am ay projet yoo xamante ni war na ko réaliser dans le futur ay fan rek ginnaaw seen coow li nag ci la waa division des investigations criminelles daal di infiltrer page Instagram bu rangu teñ bi de si Rangou officiel moom ndayu nag di rangu xamul woon ni nag ca jamono jooje ñi nga xamante ni ñoo di enquêteurs yi infiltré nañ ko nara ubbi app enquete ci moom waaye nag li nga gën a dugal moom mi di rangu mooy bi mu poste li nga xamante ni moo di yendu parti ci page Instagram am ndekete yoo nag boobule page Instagram nekkul lenn lu dul ab site pornographique boo xamante ni principal actrice moo di rangu ak ay xaritam ca boobule site pornographique bu rangu nag pour nga accéder ci da ngay fay xaalis weer wu jot waaye nag ñii di waa division spéciale de la lutte contre la cybercriminalité fexe nañ ba daal di contourner boobule barrière ca noone nag ci lañ daal di infiltrer rangu daat koy arrêté placé ko sous mandat de dépôt coïncidence la wala Eben Diop moo ko wilipande lum ci mën di doon daan ci am lu nu leer ci fan yi nu jëm Tactic TV dina ci enquête toppal leen xibaar bi ba mu leer nañ en attendant Eben Diop moom mu ngi garder sourire moom mi nga xamante ni moo fi menacé woon Rangou mu daal di yem sinon du baax ci moom.